wa mawlaana muhammad lazi jaxaltahu rahmataka lil alamin wa jaxaltahu miskal xitaami li zahiril bokk yi ñuy seetaan te di seetaanee fii ci seen télévision RDV ci seen émission bi ñuy tuddee misaanul islam fil xayaat dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak geneenu gan di leen ndokkeel ci àjjuma ji di leen ci ziyaara di leen balu àq di leen baalu àq di amaat yéene bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi dina rafet na comme niñ ko baaxoo def ñu jërëgal jëf mbokk mi ñu fi toogatoon aljuma passé muy imam Ndari Diop di juge di mas magistrat fële ci tribunalu Dakar di imaam it ñu seqoo nag moom li ñuy tuddee eh, corruption ak danse yi la ca yàlla leerale ci làmminam ñu ci ciy borom bi xattaa yar daal li ci manqué ñu koy jàppaleet tey nag ci kàttanu yàlla ak coobare ñoo ngi fas yéene dalal beneen boroom xam-xam beneen jàngkat beneen gëstukat ki ñuy dalal tey mi ngi tudd Baye Thiam Zeyna Baye Thiam Zeyna jàngalekat la fële ca Ngaan Alassane Ngaan Sayer ci Sall ban Baye Thiam Zeyna gëstukat la xalaatkat la bindkat la jàpp naa ne jiitu woon nañu mos ko fee dalal war na mat ay at fi ñu Eh, ñuy dikkaat tey di ko dalal bañ koy dalal bu njëkk it am mbind ma taxoon tey am mbind ma taxaat ñu di ko dalal. Baye Thiam yegg seen ci jotaay bi ñu ngi koy dalal jàmm di ko masaw ci coono déplacement bi di ñaan yàlla leeral laa mel ba li mu bëgg a ko jotal. Eh, Baye nag ñoo ngi fas yéene waxtaanee moom ci téere bu mu bind. tiitaree ko xam sabay siru na sanna ala ra'yi li Ibrahima Niass. Cheikh Ibrahima Niass El Hadj Ibrahima Niass bi mu génnee àddina ak léegi. mu ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom wala boog bi mu génnee àddina ak bi muy bind téere bi mi ngi toll ci ñaar fukki ak juróom eh, loolu nag lañ bëgg a seq waxtaan ak Baye Thiam ñu liir téere bi nag bañ ko liiree ñu càmbar ci lii may bëgg a wax bëgg nañ moom ki nga xam ne mooy gëstukat bi di bindkat bi mu leeral ñu alxarat wal adaf maanaam lu ko motifié lu ko wommat ba tax mu sëgg di bind ñaar fukki at yoo xam ne Cheikhul Islam dëdd na ko àddina ñaareel bi bëgg nañu it moom mu leeralaat ñi bu jógee ci tomb boobu kan mooy cheikhul islam alaaji Ibrahima Niass. ñetteel bi mooy bëgg nañ moom gëstukat bi ak bindkat bi ñu di ko tuddee bàyyi ci am Sey na mu leeralal ñi ne cheikhul islaam alaaji Ibrahima Niass dafa xëy déclaré ne am na fayda bu mu déclaré muy fayda tijaan yi. bi mu fayda boobu nag mu indi ay ruduudu fenn yu bari ñu gëm ñi wetti ñi d'accord ñi contre. ñu bëggoon nag ndax moom jëmm ji nga xam ne moo bindu téere bi danañu mën a indil ay tegtal yu firndeel ne fayda bi cheikhul islaam alaaji Ibrahima Niass woote yow mooy fayda ba cheikh Ahmad Tidiane borom tariqa Tidiane yi déclaré woon ne yaati fayda tan ndax moom la ñeenteel ba cheikhul islam alaaji Ibrahima Niass am na ay tukki yu bari yu mu def ci àddina bi bëggoon nañ mu tënkal ñi ci yi ci gën a fes ci ay tukki ak yi ci gën a ràññeeku Eh, juróomeel bi ndax cheikhul islam alhaji ibrahima Niass ki ñuy waxtaanee nii tey te moom muy bind kat bind ci moom am na ay téere yum taalif am na ay wesar am na ay woy yoo xam ne boo demee ci maktaba yi da ko ci fekk juróom benneel bi bu fekkee temps bi danañu ko may mu leeralal ñu relation cheikhul islam alhaji ibrahima Niass ak journaux yi nekkoon ci monde arabe ak rajo yi ak ci jamono boobu tey eh, Baye Thiam bu ñu la nuyoot dalal la jàmm masaw di la dalal ci plateau RTV ci émission bi ñu tuddee misanul islam fil haya defe naa tey mooy señaar yoon nga toog fi mm-hmm. kon bu ñu la joxee kàddu gi boo nuyee bokk yi ba pare bëgg nañ nga leeralal ñi mal qarat wala adaf min al baas bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu wa sayidi almursalin muhammad rasulullahi sallallahu alayhi وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين ورضي الله عن صاحب القتم والكتم أبي العباس مولانا سيدي أحمد التجاني وعن وارثه وصاحب فيضته مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم ياس ñu ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision bi di jiital ci nuyoo boobu suñu xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahim Niass Euh, suñ ko nuyoo ñu ngi jaar ci moom di nuyu mboolem xalifa généraux yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal waaye tamit ñu ngi nuyu al imaam al akbar Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Aliou Cissé suñ ko nuyoo ñu ngi nuyu mboolem ay imaam yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal di nuyu xalifa Léona Niassène suñu nijaay Cheikh Tidiane Oumayma ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu it porte parole bu xadra bi Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé ak mbooleem njabooti Mawlana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahim Niass waaye ki ñuy jiital ci nuyu yooyu yëpp mooy suñu maam Sayda Fatimatu Zahra di taaw bi Mawlana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahim Niass di la nuyu oustaz Cheikh Tidiane bi tey di nuyu mbooleem équipe bi nga xam ne ñoo ànd yow di liggéey ci liggéey yu rafet yi nga xam ne yaa ngi koy amal fii ci télévision bi ci tasaare li nga xam ne moo di lislaam ak gën a taw ñi nga xam ne ñoo di jullit ñi rawatina ndaw yi nga xam ne dañoo tollu ci jàng euh, sa question bu njëkk bi ci téere bi lan moo tax ma bind ko li tax ma bind téere bi bi ma nekkee di liggéey ci rajo Égypte ndax liggéey naa ci rajo Égypte fukki at ak juróom-benn ci baraamij al muwajjaha jamono bi ma nekkee di liggéey ci rajo bi dañoo toog benn bés benn kaset Mawlana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahim Niass jaawaloo ñëw dugg ci suñu kaset yi nga xam ne moom la ñu yore ci rajo bi euh, ku ñu wax xalifa Seck nekk Canaba bokk ak man di liggéey ci rajo Égypte moom moom moom la fa fekk keroog man ñëwuma keroog jour boobu mu bind numéro bande bi numéro kaset bi jox ma ko man tamit ma dem studio comme que ci rajo bi laay liggéey am naa droit dem laaj kaset bi déglu ko ma jël numéro cassette bi yóbbu ko déglu ko bi ma ko dégloo gis muy Mawlaana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahim Niass ñu ngi ko ciy laaj ay laaj yu bëri bokk na ci sax affaire yi gis weer weeg yooyu yëpp euh, indi naa nas muqaabala bi ci téere bi bi ma génnee rajo rek cassette boobu mi ngi ko def le 16 mars 1961 bi ma génnee rajo rajo bi ak journal al axbaar ñoo dend suma xel daj na bala maa àgg suma kër naa jaar journal axbaar seet ba xam jour bi génnewoon nañ bàyyi ci journal yi bi ma demee seen archive euh, comme que man ilaami laa comme ñoom ma génnee suma carte rajo woon leen yóbbu ma seen archive yi génneel ma jour boobu biñ génnee ma gis ñu def reportage bu mag ci moo leen a Islam Al Hajj ci jour boobu loolu nag moo ma motivé bés bu nekk ma nekk di wër ci journal yi def naa ko 12 ans yoo xam ne comme que man guddi rek laa daan liggéey bëccëg gi damay euh, libre 12 ans yoo xam ne bëccëg gi damay nekk di wër ci mboolem journaux yu Égypte yi daanaa dem axbaar ahram jumhuriya almasa almusawar axiru saaxa octobre majalat isaawa télévision Rosal Youssouf yooyu yëpp dugg naa seen archives yi gëstu lan lañ bind ci bàyyi yamuma ci loolu mboolem kilifa yi nga xam ne bàyyi xamoon na leen foofu ci Égypte ña cay dund fexe naa ba dajeek ñoom waxtaan ak ñoom lan lañ xam ci Mawlana Cheikhul Islam Alxaaji Ibrahima Niass bi ma koy dajale la dajale rek moo ma taxoon a jóg pour garde ko gannaaw bi ma ko dajalee ba pare benn at ma ñëw vacances euh, Sénégal ñu invité Baye Tuuti Niass rahimahullah ci benn rajo foofu ci Kaolack ñu toog ba heure émission bi mu des ay juróomi waxtoog yooyu bàyyi tuuti ñëw suma kër ne ma man de dañ maa invité woon benn émission te dama ko fàtte woon ma bëggoon daal bu fekkee pare nga ñu ànd bu demee rek man ma ubbi bàyyi la yow nga waxtaan ma ne ko amul benn problème ci saa si laa dugg ci journaux yi préparé quelques ay no point bi ñu demee ci guddi gi mu ubbi rek bàyyi ma man ma continuer waxtaan wi euh, dugg ak mbokki déglukat yi ci journaux yi ak lan lañ daan bind ci bàyyi interview yi ñu daan def ak moom yooyu yëpp keroog nit ñi kontaan trop ca soose bi ma xëyee ñu bëri di muy wax na ma lii ay information yu bees la yoo xam ne ma suñ ko dégg bëgg nañ daal lii nga def ko téere loo mën a def nanga nga fexe nit ñi jëriñu ci fekk boobu jamono boobu am na benn livre bi ma bind sax maa ngi ko tuddee woon xiwaay ma cheikh ani tasawuf livre bi pare naa ak yëpp ba ma joxoon ko imam Hassan Cissé ak Cheikh Maye Cissé ñu euh, muraajaa ko waaye ba lay génn gut livre bi muraajaa nañ ko ba pare ma teg foofu livre bi jublu ci bii nii ci xam soo si nu sa rahili cheikh ni ma ko tuddee woon ci début bi mooy maada qaalatu suxuf an Cheikh Ibrahim Niass wal isaati noonu laa ko tudde moo tax mooy sous-titre bi mu waxtaan ceek euh, suma benn xarit journaliste bu ñu wax Jamil Arif moo jiite majalat axir saa mooy journaliste bi njëkk a ñëw dajeeg Mawlana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahim Niass publié ko ci journal yi bi ma ci waxtaan ak moom mun ne ma noo ko tuddee ma ne ko maada qaalatu soxofa ani Cheikh Ibrahim Niass mu ne ma tur bi na lool waaye eh, ñu seet beneen titre parce que unwaan dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci téere mu ne ma kañ la bàyyi génne àddina ma ne ko àddina ak léegi mi ngi war a toll ci vingt cinq ans jamono bi may bind téere bi mu ma kon nañ def titre bi xam soo ishruna sana ala raxili Cheikh bu ko defee sous titre bi mu bind ne gannaaw xam soo shirin yooyu lan la daan journal yi di wax ci moom ak rajo yeeg yooyu loolu moo tax ñu jël titre boobu euh, dajale ci mboolem journal yi ñu daan wax ci Baye ak bind yi ñu daan bind ci moom ak it interview yi nga xam ne daan nañ ko def lu ci jar commenté ma commenté ci euh, alhamdulilahi rabbil alamin téere bi mu génnee ba léegi na ñoo wax ne amul kenn koo xam ne yaa ngi bind ci Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima Niass loolu lañ ci référence bépp baxs boo gis rek gi bam génnee ba léegi kuy bind ci moom daanaa Cheikh Ibrahima Niass danga référence ci téere yi euh, bu yàggut sax maa ngi gis ci net bi benn mauritanien ci isaatu mauritania def ci benn émission boo xam ne émission bu am solo la lépp ci téere bi la ko def te loolu yëpp mi ngi dellu ci ngéneel li mi ngi dellu ci Mawlana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahima Niass maa ngi ciy sant yàlla ndax euh, li bàyyi di wax ne inna allazina qadamu li naalu muraadahum képp ku ma liggéeyal rek da nga jëf sa càkkutéef te man ba ma koy def rek dama ko defoon rek ngir éene bi rek mooy liggéeyal Mawlana Cheikhul Islam Alhaaj Ibrahima Niass keroog bi téere bi génnee biñ ma indilee couverture bi pour ma xool ndax baax na wala baaxut ci jour boobu damaa ñëw rajo bi ma ñëwee fekk ñu bindal ma ne ma bu suba teelee da ñëw ci direction bi ma xëy suba teel ñëw bi ma ñëwee ñu ne ma yokkal nañ leen vingt cinq livres ci sa salaire vingt cinq livres ci solaire. xoolal Guinée Masri waaw ñoo yokkoon nañu la vingt te boobu du heure yokk parce que ñun heure yokk mois de juillet lay nekk. Hmm. ne waaw man lan lan lan laa def bañ ma yokkal après ci guddi gi ma ñëw gisee ak oustaz Baye Mar na ko man de tey naare dañ ne moon yokkal nañ la vingt cinq livres ci sa salaire bi mu ne ma loolu danañ koy def waaye naar yi rek lañ koy defal c'est la première fois ma gis ñu defal ko ci africain ci africain yi nga xam ne ñooy liggéey fii ci rajo bi. alhamdulilah rabbil alamin eh, jërëjëf eh, oustaz Baye Thiam Seyna Baye bu ma la déggee mel na ni eh, li la motivé kon ba nga bind téere bi mhm. mooy jamono bi nga nekkee di liggéey ci keer ci isaatul muwajjaha mhm. am kaset bu fa feeñ mhm. mu doon waxi cheikhul islam alhaji ibrahima Niass te jamono boobu sax yow ñëwuloo mu feeñ ci loxoy xalifa Seck mu ngi suñu mbokk dëkk Thiénaba yàlla dogal bi mu ñëwee mu wax la ko jox la référence yi nga topp ko ba gis ne lu wér la mhm. mu jaral la it nga jóg gëstu ci al axbaarul masri mhm. ba fekk na it am na yeneen muqaabala mhm. bi maanaam su ma la déggee kon mel na ni eh, dañ la wax na la nangam seexul islam wax na ko ci réew mi mu dikkee la ay léeb nga gëstu ko fekk na réalité la dëgg la bi mu doonee réalité nga gis ne su fekkee ne eh, ñii ñoo am sañ-sañ buñ am ci bàyyi ñes desal ko luñ mel man mii doomu doomu dëkk ba sarawati na mhm. kon war naa jox sa xatraay dëgg la mu mel ni kon loola moo la motivé nga jóg mhm. ne eh, ñoom kat buñ defee li war naa def loolu ko loolu nga jóg def say gëstu mhm. beneen bi feeñal nga ne eh, fukki at ak ñaar yaa ngi ko nekk xaayara comme guddi nga daal liggéey liggéey bu bëccëgee da nga am jot diir fukki at ak ñaar yi yaa ngi koy wër ci mboolem journaux yi nekk keer koo xam ne amoon na ak cheikhul islam alaaji ibrahima ñees contact mm-hmm. wala jotoon fekke woon na jotaayam wala mm-hmm. nga jéem ba gisanteeg moom toog ak moom gëstu mm-hmm. mu mel ni buñ la déggee ci façon bi nga doxalee référence yi ñu joxe yu wér la ndax gëstu bu toll ci fukki at ak ñaar ci ay muxaabalaat ay saxsiya ay place yoo xam ne place yu génne xibaar la jàpp naa ne su fekkoon na lenn loo xam ne safaanoo na ak réalité am na ci gannaaw bu téere bi génnee rideau de fin dana am ñu weddi loola mais xatta xasi la sa yegawuñ ko fekk dëgg la bi des mooy feeñal nga ne euh, bokk na ci ba tey li ci gënoon a poussé bi nga jógee ko foofa ñëw Sénégal def fi vacances ànd ak Baye Tuuti rahmatullahi alayhi ci benn émission FM bu ñu leen invité woon ba ngeen ca waxtaanee mu présente li génn dem nga yeggalee jotaay ba nga wax ci li nga jot a gëstu xam ko ci moom mu nekk ixjaab li leen doon déglu mhm. mboolem ku leen doon déglu mu yéem ko mhm. naw taxawaay bi naw xam-xam bi naw sell ga mhm. mais lil asafi sadid mooy fu ñuy fu ñuy jëlee atee luñ mel ñu bari nag sàkku ci yow na la comme kat yaa ñu ñamal li jéem ko def ci téere dëgg la nga jéem a dabit tamit bëgg-bëggu nit ñooñu ndax bindkat bu ne ak jàngkat bu ne pour nit ñi jariñu moo la tax a jóg nga def ko pour jariñu fay euh, kon mel na ni bu ñu la déggee tur bi amoon nga ci jafe-jafe tuuti. Mhm. ci départ bi. waxoon nga ne da koy tuddee lu lu journaux yi wax ci Seexul Islaam. Mhm. gannaaw bi nga waxtaan ci ak sa mbokk euh, journaliste. Mhm. moo wax ngeen discuter discuter ba ci ni xayatul mataaf. ngeen gis ne kon nañ ko tuddee ñaar fukki at gannaaw bu fi Seexul Islaam génnee àddina muy jamono ba ngeen. jamono ba ngeen jamono ba ngeen koy titre. tey euh, bàyyi gannaaw buñ jógee ko ci tomb boobu. Euh, bil ijaas. bëggoon nañ nga leeral lañu kan mooy cheikhul islam alaaji ibrahima ñes mi nga bind téere bi kooku mooy kan euh, question bu am solo la ndax Mawlana cheikhul islam alhaaj ibrahima ñes euh, gane àddina ci Taïba Niassène ci 1900 kon koo xam ne euh, lépp lu ñu war a jàng rek ci xam-xam jàng na ko ci loxoom waajuram Mawlana Cheikh Alxaaj Abdoulaye Niass gannaaw bu wëttu alquran moo taxoon waykat ba ne benn sëriñ mënu fee wax ne dem na daaraam hmm. lépp lum jàng rek waajuram Alxaaj Abdoulaye Niass moom moo ko jàngal yàlla may ko mu taalif téere ci kanami waajuram te loolu tamit beneen may la ndax sa ustaas bi la jàngal jàngal la ba gis meññeti lim la jàngal ci kanamam loolu beneen may la mu taalif téere ci kanam yi waajuram di ruuxul adab li ma xawaa min xikamin wa adab euh, gannaaw bu waajuram génnee àddina 1922 mu nekk ak magam Mawlana Cheikh Mouhamed El Khalifa euh, euh, di ko jàppale comme ni nga xamee ne noonu la ko daan defee ci kanami waajuram Mawlana Cheikh Alhaji Abdoulaye Niass waaye bi ñu demee ba 1929 ci la yëgle ne fayda bi doon Cheikh Ahmed di wax ne borom mi ngi ñëw fayda boobu man maay borom loolu am na benn téere bu génn bees ku ñuy wax euh, gënnuun di Mouhamad euh, Rida gënnuun di waa Maroc moom moo ko génnee dajale ci mboolem rasaayil yi nga xam ne moom la daan bàyyi di bindanteeg Cheikh Ahmed Sukayri ju al Iyaashi li ko daan bàyyi di bind ak lim daan tontu yu ci bëri xablal fayda ak gannaaw fayda leetar yooyu boo ko liiree da xam lu bari ci li daan xew ak yëg-yëg yi nga xam ne bàyyi daana ko yëg njëkk mu yëgle fayda bi daan na ci waxtaan ak Cheikh Ahmed Sukayri ju lu bëree bëree bari feeñ na ci leetar yi ba bi mu yëglee fayda bi tamit ñu bëri ci borom xam-xam yi nangul nañ ko ko boo xoolee Cheikh Ahmed Soukeyru ji ci boppam wax na ko ne ko chahidtu kan mooy Cheikh Ahmed Soukeyru ji jamono boobu mooy xalifa Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nga xam ne mbooleem li suñ mag ñi am ci ay asrar ak ay may li ci ëpp mu ngi jógee ko ci moom Cheikh Ahmed Soukeyru ji ñoom ñëpp dañ daan ittewoo pour am ak moom relation parce que jamono boobu moo fi toogal Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bind na ko ay woy ne ko shahidtu lakum fathan mubinan bima lakum bihi lxaqu min bayni albariyati xat xussa mu dem ba ci biir woy mu ne ko warista an cheikh tijaani xilaafatan wa inni lakum fiha anussu lakum nassa mu ne ko maa ngi lay seedeel ak ubbeeku goo xam ne ubbeeku gu bir la bu feeñ ci li nga xam ne moo di tariqa tijaaniya maa ngi lay seedeel ne yaay ki nga xam ne yaay doon tariq euh, wirasat Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu boo liiree leetar yi ci biir am na ci bëri bu koy adressé naa Cheikh Ibrahim Niass al Khalifa moom reconnaître na ne Ibrahim Niass mooy xalifa Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu euh, gannaaw gi mu dem sanc madina nekk foofu ak mboolem ay taalibeem fayda boobu bu ñu jegee ci question bi aju ci mbiri fayda bi dañ ko gën a leeral mu nekk Medina di liggéey ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom di liggéey ba 1937 mu déparé fi pour tasaare li nga xam ne moo di lislaam mooy ajam bu njëkk 1937 xoolal ni ko yàlla dafa lee tawfiq ndax mu jóg pour tasaare lislaam njëkkee ko ci ziyaara Cheikh Ahmed Tidiane bi nga xam ne mooy sëriñam jógee fa dem ziyaara yonent bi sallallahu alayhi foofu nekk fa la mooy nuqtatul intilaax ci fayda bi commencé di tasaaroo ci àddina bi yàlla may na ko tamit ku nekk xam na euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku fonkoon la du tukki alxamis Euh, ak samedi ñaari bés yooyu bés yu fonkoon la di ko tukki Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moom it li ëpp ci ay tukkeem ñaari fan yooyu la daan tànn xoolal tukkeem bi njëkk sax mu jugee ko ci alamul xay bi di ñëw ci àddina bési alxamis la woon ndax bési alxamis ci la gane àddina tukkeem bu njëkk muy jóg di tasaareen islaam mooy ajam gu njëkk 1937 bi muy génnee Medina bési alxamis la woon ci lay déparé madina pour tukki tukkeem bu mujj ci jugee koo Medina di tukki tukkeem bu mujj ba si samedi la jugee koo Medina pour tukki tukkeem bu mujj dem Dakar tukkeem bu mujj di jugee koo ci aalamu dunia di dem ci aalamu barzaq ba si samedi la woon ba tey mooy tukki bu mujj kon moom yàlla may na ko moom daf koo tànnal ñaari bés yooyu nga xam ne moo gënoon rafet ci wàllu tukki ci la tukki tukkeem bu njëkk ñëw ci àddina ci la tukki tukkeem bu njëkk di génn di tasaare lislaam waaye ci la tukki it tukkeem bu mujj bi muy wuy ji boromam tabaraka wa taala mu liggéey loo xam ne ci lislaam tamit ñëpp ci teg seen bët euh, amul benn réew booy dem fi mu nekk ni mën nañoo wax ci àddina bi lu may da fa gis ñoo xam ne ay taalibeem lañ ay taalibe yoo xam ne nationalité réew boobu lañ ay muqaddamam yoo xam ne nationalité réew boobu lañu te loolu yëpp ci gëm bi mu gëm mission bi nga xam ne ci la nekk ndax nee na fala anaalu raxatan lil qalbi wa fi lbasitati yuaasi rabbi du ma am mukk noflaay ci sama xol bi feek maa ngi yëg ne ci kaw suuf si am na koo xam ne yaa ngi mooy yàlla loolu moo doon li nga xam ne moo di objectif am moo taxoon mu daan jug di tukki alawtu lbihaara zaxiraati wa innani alawtu alqura walmudna balha aljibala ruumu ridal yi xoolal foofu li nusrati diinihi wa li lil jiilil di misaala yéeg naa montagne yi naa doj yi yéeg naa avion yi mboolem moyen de transport utilisé naa ko pour tukki uniquement rek pour dimbale diine ji pour tasaare diine ji pour won génération bu bees bi naka la ñu war a tasaaree diine ji moo tax liggéey na ci liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ci 1961 bi mu ñëwee Égypte journal tiitre titre nañ ni Cheikh Ibrahim Niass am na huit millions taalibe ci jamono boobu 1961 ci journal bi bi génnee bi muy ñëw Égypte première nganam ci Égypte journal Akhir Saa def na titre na Cheikh Ibrahim Niass am na juróom-ñetti millions yi taalibe keroog bi mu génnee àddina ci 1975 journal bi ko génnee ba tey Akhir Saa bind na ne Cheikh Ibrahim Niass bàyyi na fanweeri millions yi taalibe loolu la journal bi bind yëpp ñu ngi ko yore bi mu génnee àddina bàyyi na fanweeri million yi taalibe xoolal bi mu génnee àddina ak léegi ñaati at te fi mu nekk nii taalibe mi kenn xamul mu toll daanaka jege ne cent millions wala wala mu passé ko ni ñu nattalee rek te loolu yëpp bu amutoon digal ci jug tasaare diina ji loolu yëpp du am ndax nee na qad jaa iznun fi siyaahati faha anni asiru axtafi zawin nuha yàlla moo ma jox ndigal pour ma jóg tasaare li nga xam ne moo di euh, diine ji alhamdulilahi rabbil alamin eh, jërëjëf euh, Baye sey na Baye bu ma la déggee mel na ni euh, ki ñuy présenté léegi muy cheikhul islam alaaji Ibrahima Niass te ci nga bind téere mhm. ñaar fukki at ak juróom gannaaw bu mu génnee àddina mhm. wane nga ne Eh, mu ngi juddoo ci ñaari kilifa mhm. yu tedd baay bi di alaaji Abdoulaye Niass mhm. yaay bi di maam Astou Diack mhm. nga wane ne yàlla defal ko tawfiq li daraja lépp lu jàng ci baayam da ko jànge mustalaxasaay dem ci benn daara mustalaxasaay dem ci benn sëriñ lu mu xam rek ci keppaaru baayam la ko jànge yàlla defal ko tawfiq it mu teel a téere fekk baayam mi ngi dund mu fekkee luñ mel nga wane ne xam-xam boobu nag daf ko topp ma dal ayaat mhm. mu commencé ci di ci def daxwa mhm. di ci liggéey ba xëy déclaré ne fayda bi Cheikh Ahmad Tidiane doon def moo ko yore kone mhm. nga ne euh, sukkari nangul na ko doonte amal nañ ko question yi ngi ñëw nga wane ne dem na ba mujj gi mu sañ ci dëkk bu ñuy wax Medina Baye Niass jógee koo fi dem tukki tukki ma ma ngi ko tënkoon ci joxe farataay ajam mhm. joxe waala daxwal islaam yi mhm. laata muy départ jógee ko fii dem na Fass mhm. siyaare sëriñam Cheikh Ahmad Tidiane ko fa dem Makka aj fa siyaare wasilaam Cheikh yontu yàlla moom salawaatullahi wasalaamu alayhi eh, nga wane ne ci biir tukki yooyu fu nekk dem na fa pour yëkkati daxwa islaam yi wane ne xolam du dal xelam du daj fekk mi ngi yëg na ci keppaar gi ñuy dund ci kaw suuf am na fi place bu ñu fay mooy yàlla fekk yëgul ne ñëpp d'accord nañ def ruduux ci ndigalal yàlla du am la ko neex du am satisfaction bu mel ni kooku kon suñ ko su ma la déggee dundam yëpp daf ko def li xidmatil islam daf ko def pour liggéeyal l'islam daf ko def pour tasaare lislaam daf ko def pour yëkkati kàddu la ilaha illallah dëgg la kay euh, ñu ñëw ci beneen laaj Euh, Baye Thiam Seyna yaa bind téere bi ñu tuddee ñaar fukki at ak juróom gannaaw bu seexul islam génnee àddina mm-hmm. maanaam gannaaw bi ngay bind téere bi boobu mm-hmm. téere bi bu ñu ko liiree fekk nañ ne cheikhul islam alaaji ibrahima Niass woote na li ñu tuddee fayda mm-hmm. bi mu wootee fayda nag fekk nañ ne fayda bi keroog déclaré ne am na mu ngi woote faydatu tijaaniya indi na ay rudoonu fer ay coow min bay na mu ay ayidin wa mun kirir mm-hmm. am ñu d'accord am ñu wet mm-hmm. d'accord gi ànd ak soutenir ko ci bëgg ak ay tegtal mm-hmm. weddi gi am ñu d'accord indi ko ci seen i tegtali bopp seen weddi gi ndax gannaaw bu mu déclaré ne lii mooy faydu tijaan bi Cheikh Ahmad Tijaan ba ndax am na tegtal yoo mën a firndeel na Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Niass jamono yi muy déclaré ne fayda bi Cheikh Tidiane doon wax moom la ndax am na tegtal ci gannaaw bu ñu fekkee ne Cheikh Tidiane waxoon na ne yaati faydata ndax faydu boobu la waaw jërëjëf euh, Cheikh Ahmed Tidiane al Oustaz yaakaar naa ne képp ku topp masirat Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu gis li muy liggéey gis li mu liggéey tariqa tijaniya gis gannaawam li ay njabootam li liggéey ci tariqa tijaniya yaakaar naa ne du am benn sikk ci ne fayda boobu Cheikh Ahmed Tidiane waxoon na taati faydatun ala ashaabi xata yadxulu annaasu fi tariqina afwajan afwajan da nga xam ne kii kii mooy borom fayda bi du ma dugg sax ci ñi ko seedeel Cheikh Ahmed Soukayri Diop Mauritanie yi nga xam ne ñoom ñëpp dañ daan ñëw gis ko seedeel ko ne moom mooy borom fayda bi waaye lim liggéey ci tariqa tijaani rek xataa yadxula naasu fi tariqina afwaajan afwaajan baat boobu rek da nga xam ne li dugg ci tariqa tijaani ci jamono Mawlana Cheikhul Islam Alxaaji Ibrahima Niass moom lim ci liggéey ba nga xam ne borom fayda rek. moom loolu Cheikh Tidiane moo ko waxoon. ko waxoon. ci Ifada al Ahmadiyya te te te mu déclaré fayda mhm. wu foo di dugg ci lislaam firndeel na loola. firndeel na loolu ndax ñaata nationalité kenn xamul nu mu toll. yi nga xam ne dugg nañ ci fayda bi ci loxo Mawlana Cheikhul Islam Al Hadj Ibrahima Niass. te man dama doon def benn seetlu. gis na Cheikh Tidiane li mu wax loolu. Cheikh Tidiane mi ngi génn cent 1815. Mawlana Cheikhul Islam Al Hadj Ibrahim Niass gane àddina 1900 1815 ak 1985 ans la 85 ans boo ko xoolee 5 la ak 8 muy 13 5 ak 8 13 13 mooy bàyyi ndax boo jëlee 13 mooy ahadul mooy bàyyi kon loolu rek ci boppam ba tey man suma suma wàllu bopp suma seetlu bopp dafay firnde ne gannaaw bu Cheikh Ahmed Tidiane kii moo ñëw pour continuer li nga xam ne moo di masira bi te lim ci liggéey amul benn barki dem maa ngi seetaan télévision xalifa euh, Cheikh Ahmed bi ci Fass euh, ci gàmmu Nigeria ñu koy interview muy wax mu ne ci dëgg-dëgg Cheikh Ahmed Cheikh Ibrahima Niass lim dugal ci tariqa tijaaniya lim liggéey ci tariqa tijaaniya amul kenn ku ko liggéey tariqa tijaaniya lim ci dugal ci ci ci nit amul kenn ku ko def ci tariqa tijaniya te boo xoolee Baye dawul ne moom dafay dugal n'importe quel nit fépp fu mu dem ña fa gën a mag ñoom lay njëkk a ja ñoom lay njëkk a yéem ba ba dugal leen tariqa tijaniya Nigeria bi mu fay dem boroom xam-xam fa gën a mag ñoom la njëkk a dugal ci tariqa ñoom la njëkk a yeesal seen tariqa tijaniya Abdoulaye Bayoro di buur ba ci boppam maalam Tijaani Ousmane di borom xam-xam boo xam ne ñëpp ko xamoon ci kanu njëkk muy xam Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. Sani Kafanka ñoom ñëpp nga dem Ghana ba Baba Ngida euh, euh, Baba Makranta boo demee Ghana ñoom ñëpp dañoo nekkul ay borom xam-xam yoo xam ne ñëpp leen xamoon ci réew yu ñu nekk. biñ gisee Mawlana Cheikhul Islam Al Xadim dañoo fàtte lépp lu ñu xamoon ñoom topp Mawlana Cheikh Ibrahima kon toppuñ ko ci réer mais dañ ko topp ci xam xam kii ne lim yore nii dëgg la loolu ci boppam loolu bokk na ci li nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi seetlu xaraka daawa Mawlana Cheikhul Islam alxaajimi ak li mu def ci lislaam li mu def ci tariqa tijaniya da nga xam ne lii saaxibil fayda rek moo ko mën tariqa tijaniya ci boppam fi ne ni boo ci génnoon taalibi Mawlana Cheikhul Islam alxaaj Ibrahima Niass da nga gis ne maanaam te ma wax maanaam li ci ëpp ci ñi nga xam ne ñoo nekk tariqa tijaani jamono ji ñu toll ay taalib Mawlana Cheikh Ibrahima Niass la li ci ëpp lim am ci biti kenn xamul nu mu toll kon loolu nag teg ci ñi ko seedeel bëri lool Mauritanie inna naraaka wa anta saaxibu fayduha Mauritanie yi ko wax ak bayti métaar yi léegi Cheikh Ahmed Sukayri Ju warista ani Cheikh Tijaani xilaafatan wa inni lakum anusula wa inni lakum fiha anusulakum nassa maa ngi la koy yaxal di la reconnaître ne yow yaa donn Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu te ci biir téere gënnuun bii nii ku ko jënd ba liir res resaay li daan bàyyi di bindante Cheikh Ahmed Sukayri ak li gannaaw bu Cheikh bàyyi yëglee fayda bi rasaayid yi ci topp Cheikh Ahmed Sukayri xam na kan moom Mawlaana Cheikhul Islam Alxaaji ma te yu ci bëri reconnaître na ko wan ko na ko yow yaay xalif Cheikh Ahmed Tijaan radiyallahu anhu euh, Baye Thiam Sey na bu ma la déggee mooy mel na ni feeñal nga ne bi mu déclaré fayda bi mhm. wér na ne mooy fayda bi nga xam ne moom la Cheikh Tidiane doon wax ne taati fayda ko yeddi ko doon naa sa fii nga ne boo jëlee afwaajan afwaajan yooyu moo waxoon mm-hmm. diir bi seexul islam alaaji ibrahima ñas déclaré ne faydatu tijaan yi am na addina mm-hmm. bi fu nekk ay kuréel ak i mbootaay duggee na fu tariqa tijaan yi bi waa seetal fayda boobu mm-hmm. kooku benn ñaareel ba nga wane ne soo jàngatee diir bi nga xamee ne ci la seexu tijaan génn judd mooy 1815 ci la génn àddina ci la génn àddina fon bàyyi ñas gaañ àddina 1900 boo seetee diggante bi faariqu sinn bi dana la jox quatre vingt cinq ans mhm. nga ne quatre vingt cinq ans yi boo ko calculé isaab ko jox lay jox treize mhm. treize mooy baay mhm. treize mooy ahad nga ne loolu firnde la ci sa calcul bu sa déggin bi ci des mooy wanee nga ne boo ñëwee ci wufood yi ba muy dugal nit ñi ci tariqa tijaan yi ci fay doom boobu seetu toon benn waay boo xam ne borom bu bu su gàtt la woon la wooyef d'accord am na ca mais fu mu dem ñi gën a kawee ci réew mi ñoom lay njëkk a jël mhm. nga joxe ci misaal ne bi mu dikkee Nigéria mhm. fekk na fa ay borom xam-xam mhm. Abdoulaye bàyyi mu doon koo xam ne dañ ko daa joxañ ci baaraam ci xam-xam mu convaincre ko ba mu nangul ko nga joxe ci mu Tijaani yi mu convaincre ko ba mu nangul ko nga joxe ci eh, Gaana ne boo demee def na fa lu ñu mel ci ay nit yu bëree bëri mu mel ni kon fu mu dem ci dëkk yooyu yëpp mhm. ña fa gëroon a kawe nga xam ne ñooy axlaam yi mhm. ñooy alaamu jamono boobe mhm. ñooy boroom xam-xam ya ñoom lay njëkk a convaincre su ko defee ñëpp topp seen ko wane nga ne seedeel nañ ko ko ci ay mbind lii lenn ci Mauritanie yi ñoo ko bind lii Ahmadou Soukari moo ko bind wane nga ne am na euh, téere yu dikk yaxal risaala yi mhm. yi doon bindanteeg Ahmadu Sukkari ji mhm. ak Ahmadu Sukkari yi nagol ko lañu mel mhm. mu mel ni kon su ma la déggee bi kulli saraxa li Seexu Tijaan doon wax noone ne taati faydatan boobu moo ñëw fii tey léegi nag dafa question moo bëgg laaj lu tax kon euh, attaques yi parce que booy xool euh, bàyyi Niass ñiy attaqué turux yi turux yëpp bi si fa am am na nit ñoo xam ne seen seen seen seen yitte mooy bul tudd tariq mm-hmm. bul tudd sufiyanke mm-hmm. boo ko tuddee ñu teg ci lu bon mm-hmm. teg ci lu ñaaw mais soo xoolee ci biir attaques yi ñuy def tasawuf ci biir attaques yi ñuy def tariqa a fa mel ni bàyyi ñus daf ci am nasibul asad ci rëb gaynde moom lañ ciy gën di attaqué lu war a loolu waaw parce que dafa am nasibul asad ci tariqa tijaaniya moo tax boo amee nasibul asad ci tariqa tijaaniya boobaa foog mu am nasib ci attaques yi parce que nit ki boo amee lu loo xam ne ñëpp a ngi ko doon mënuñ koo am fokk nit ñi dal ci sa kaw loolu lu c'est c'est naturel te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que mucc na ci attaque bi mu ñëwee lu nekk wax nañ ko ko Cheikh Ahmed Tidiane est-ce que mucc na ci attaque bi mu ñëwee woote li nga xam ne mooy tariqa Tidiane yi lu nekk wax nañ ko ko kon nag bàyyi mi nga xam ne dafa ñëw moom it euh, jaar ci seen tànk ida saara xayru naasi surtout waraahu wa in xalla yowman fal masiru baidun bu ñëwee jaar ci seen tànk moom fokk ñu dëggee leen jamoon dana ko jam mais li ëpp solo rek mooy attaques yooyu amul benn jeexit ci moom. te taxul yàqalu ko dara. li mu bëgg a def mi ngi koy def li mu bëgg a liggéey mi ngi koy te képp koo xam ne yaa ngi xool sa bët te benn toq kañaa nekku ci soxal da nga xam ne bàyyi lim liggéey ci lislaam ci tariqa tijaniyya néew na waxuma ne amul ku defu de waaye néew na nga gis ku ko def. alhamdulilah jërëjëf kon kenn ku ne euh, ni nga. jëf ak wax. Mhm. bu rëddoo du fenn nooy la toll ci yëf. Mhm. tey Cheikh Cheikh Baye ma ñëw ci beneen laaj bëggoon nañ xam ndax Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass mi nga xam ne moom nga bind ab téere tuddee ko ñaar fukki ak ci gannaaw bu mu génnee àddina. ndax moom euh, mën nga ñoo leeralal gën a fës ci ay tukkeem ak la ci gën a ràññee bu mel ne tukki kan loolu. Mhm. yan yan tukki kan yan tukkeem a euh, waaw bëri réew yi mu tukki euh, surtout. Arabie Saoudi aj surtout euh, ndax euh, aj na lu war a toll ci fukki yoon ak juróom-ñaar ci lu gën siiw fukki ak juróom ci lu gën a siiw waaye tamit euh, dem na umra lu bëree bëree bëri tukki na fu nekk ci biir Afrique lu demee ni ki Nigeria Ghana ak yeneeni réew ci biir Afrique ci biir réewu arab yi tamit wax naa ko léegi Arabie Saoudi dëkk bu miinoon la euh, Maroc tamit dëkk bu miinoon la ndax xarit yi Hassan euh, II la woon li ko booleek Hassan II sax mooy dafa am mawqif maanaam position bum mu jëloon ci Mouhamadul Xaamis bi ko tubaab yi jàppee position boo xam ne bu leer la euh, def ci lépp lu mu pour tubaab yi bàyyi loolu nag bi Mouhamad Hassan Saani yegee loolu tax na loolu mu gën a jàpp Mawlana Cheikhul Islam alxaaj te léegi relation boobu ba léegi mi ngi continuer entre Mouhamed Sadis ak famille Mawlana Cheikhul Islam alxaaj Ibrahim Niass euh, tukki ne Égypte ak prés euh, amoon relation yu dëgër ak président Jamal Abdou Nasser euh, ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci Égypte ba ci al Azhari Sharif yàlla may ko loo xam ne moom la ko yàlla masa may ci nit ku ñuul mu dem jiite al azhari sharif jiite fa juma ci le 10 mars 1961 ci jamono cheikh Mouhamed al Ghazali keroog bi mu xutba ba pare ñaari xutba yi xutba bu njëkk mi ngi ko def ci fadl as-siyaam ndax weeru koor lool xutba ñaareel bi ci al waxda al islaamiya julli ñi ni ñu war a nekk nekkee benn ñu ñaan ko pour mu tollanti ko ci jaamia Omar Makram xam nga jaamia Omar Makram ci Garden City ñu ñaan ko mu ñëw foofu tamit pour def fa xutbatu juma def fa salaatul juma waaye yàlla def yoon wi xaw a xat mu yéex a ñëw bi mu agsee fekk ilimaan bi sayid saabix bi bind fiq sunna euh, taxaw na ci kaw minbar bi bay commencé di xutba bàyyi ñëw toog keroog mu doon def xutbaam bi ci euh, gazwul fada dem ci kaw weer wi ndax dafa tombé nag bi yori Gagarin waa Russie boobu demee ci weer wi bi xutba gi jeexee ba mu julli ba pare mu wax bàyyi na ko jugal nga commenté ci xutba gi ci lan la lislaam wax ci xazwul fada bàyyi def ci xutba goo xam ne xutba gu am solo la ci biir Égypte foofu teewee na fa ay daje yoo xam ne daje yu am solo la ci tukkeem boobu bokk na ci daje boo xam ne cheikhul azhar moo ko ootee woon ci ndigali Jamal Abdou Nasir bi nga xamee ne am na benn réew boo xam ne dafa taxrifoon alquranul karim am baat bu mu ci wàññi wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu gayru boobu la dindi pour réeral jullit ñi ak ñi nga xam ne seen xam-xam demeewul noonu def ci ay kaamil yu bëri tasaaroo ko ci monde islam bi ñu ko gisee président Abdou Nasser woote daje keroog daje ba journal axbaar boo demee ci suma téere bi da ko ci gis journal axbaar wane nañ ko Baye moo wax ci turi mbooleem gani alamul islam yi teewoon mbokk na ci discours am bi lim xalaatoon mooy nañ fexe eh, alquran bu ñu yem rek ci bind ko ci kaamil waaye nañ fexe tamit def ko ci ay cassette loolu moo indi kaset al alquran yi ngay gis ni xalaatam xalaatam la. ñu sant ko eh, xuraa yu bëri ñu laajoon xaalis waaye Mahmoud Khalil Khoussari moom bi ñu ko ko santee moom mu ne bu laajee mu fay sax moom mooy fay. moo tax moom moo ko njëkk a def biñ ko defee ba pare yónnee ci bàyyi juróomi carton ci kaset yooyu kaset rouleau yooyu xuraan yooyu bàyyi bi mu ñëwee séddale ko mbooleem këri diine yi moom mu garde benn benn bi mu jox ko euh, RTS temps yooyu seen national temps yooyu ki jiitoon seen national di Aliou Fall Aliou Fall boobu chauffeur yi Baye Niass la woon njëkk muy nekk directeur seen national moom la bàyyi di wax naa ni kaza saaiqi aliou faala wa caama ahmedu wa ibra faala ci tukkeem moom moo doon dawalal bàyyi bi bàyyi di tukki rex la xijaaziye boobu bàyyi wane ne maa ngi ànd ak suma chauffeur aliou fall euh, Cheikh Baye bu ma la déggee kon mel na ni euh, dem na ci àddina yi fu nekk mhm. te lenn yóbbu ko kon lu may tasaare daxwal islaamiya mhm. tasaare fayda tijaan yi bu mhm. mu ñu am ixjaab ci moom nangul ko beneen nga ne eh, tukki na lu dem ci fukki tukki ak juróom-ñaar yoo xam ne ak aj lay tekki. Mm-hmm. ak leneen loo xam ne yoon yoo xam ne def na ko pour omra. Mm-hmm. wax nga ne dem na maro dem na Égypte mm-hmm. dem na Arabie Saoudite dem na fu ne. nga jagleel ci taxis ràññeeku gum ràññeeku ci Égypte. ba yàlla dogal mu dem ci olamawul asar ñu nangul ko mu jiite fa juma. ayam Muhammadul Xasaali. programme woon ko moo waroon a jiite ci jaamiyal Makram Omar Makram yàlla dogal eh, embouteillage bi tax yëggut ca jàmmam jamono dama waroon a yëg ci minbar bi mm-hmm. ba ñu paree mu def commentaire ci li ñu tuddee alfadaaw jamono bi waa ji gaa yi yéegee ci weer yi mm-hmm. te am sax ñu taxawoon wetti ko carrément ci jànkati lislaam yi mm-hmm. ba yeggoon sax am ñu si doon takfiir la doomu aadama yi ne ko ko wax génn nga ci lislaam mu dema mu dindi luñ mel ak bil xujja ay tegtal ak ki lay nga ne def na dajee nañ ci bi nga xamee ne am nañu réew mu taarif alquran mm. wa man yattaqi wa man wa man yattaqi xayral islaami diinan mu dindi xayra ja mm-hmm. loola tasaare ci ay kaamil yu bëri mu mel ni kon fi ne lislaam doonul lu ñu war topp mm-hmm. e, ñu daal di bindaat kaamil yooyu mu nekk e, jéego bu échec mm-hmm. bon bari ñu tëj bunt bi ndax jàppoo ne bàyyi ñes contact bi mu amoon ak Abdel Nasser. Mm-hmm. gannaaw bu xamee ne Abdel Nasser kilifa arab la woon goo xam ne révolutionnaire la. Mm-hmm. dafa doon révolté wu ci yu bëri. ba tax na mm-hmm. ah, sawraatul arab yi xewoon yëpp. fu demee ni ki Libi fu demee ni ki Syrie fu demee ni ki Bagdad. ñooy ñëpp moo moo formé gars yi fa nekk bañ dem daaneel la fa nekk taxawal fa état. ndax jàppoo ne Baye Niass contact bi mu amoon ak Abdel moo ko indiloon rek xarq diggante moom Senghor. waaw euh, Baye. contact bi amoon ak Abdou Nasser Senghor boo xoolee ci archives yi euh, tukki daan bàyyi di tukki te xam nga nguur bu fekkee yaa ngi tukki waxtu nekk di dajeeg ay chef d'état te jaaroo ci ñoom. duñ la wóolu duñ la wóolu loolu rek la te waxtu nekk bàyyi mi ngi tukki te bu demee ay chef d'état ñoo koy recevoir du Abdou Nasser rek. moo mboolem réewu arab yi fu mu demaan président yi ñoo koy recevoir te seen gan lay nekk loolu da dafa nekkoon loo xam ne du du daf daan déranger Senghor daan déranger bu mu mën a nekk il faut loolu mu xaw laa déranger tuuti surtout boo xamul kii daan lay tukki mm-hmm. mais bàyyi tukkeem yëpp comme li ma ko waxee sànq mooy liggéeyal diine ji Abdou Nasser euh, wax naa ko ci téere bi euh, soxla woon na Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahima mm-hmm. parce que biñ ko présenté Mawlana Cheikh Ibrahim Niass te moom mi ngi bugg a dugg biir Afrique xam na ne euh, jot na ñu bëri fexe na ba am ak relation ak chef d'État yi ñoom Kwame Nkrumah ñoom Cheikh Touré ñoom yëpp ay xaritam la ñu woon. Hmm. chef d'État yi nga xam ne ñoo doon xeel colonial bi. Hmm. te bàyyi loolu la gëmoon moom it dafi colonial bi jógee kon ñoom ñaar dëppoo nañ ci bëgg-bëgg boobu mooy génnee fii li nga xam ne moo di colonial bi. Euh, euh, seex bi bu ma la déggee kon mel na ni euh, baay tukki yi mu doon tukki réew mu mën di nekk en tant que di réew di doxee chef d'état bi dana ci am ak fiir mm-hmm. dana ci am ak jaaxle ndax kilifa bu toll noonu te chaque jour wala chaque weer wala chaque semaine dana génn réew mi nga di ko déglu ci journal yi. àddina bi ñu di ko wax ne dajee naag président sangam dajee naag président sangam te booy dem doo xam protocole d'accord bi nga xam ne moo ko takkaleeg booy réew mooma booy ñib si doo xam la mu indiwaale sa digganteeg moom ku mënoon di doon yaakaar nga ne da nga da am xel ñaar mm-hmm. na loolu moo taxoon euh, Senghor bàyyi daf ko doon déranger loolu mel na ni firnde la bu ci li buñ dee gis sa wax tey léegi nag jëmm ji toll nii muy Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass ci borom xam-xam baat ba tax ñi di ko wax ci liggéeykat ci daxawal islaam yi ci tariqa tijaaniya ndax am na ay téere yoo xam ne bind na ko mu doon yuñ bind nga fekk ko ci makaati bi walla nga ñàkk ko fekk ndax am na ay téere waaw jërëjëf euh, ci laaj boobu euh, Baye gannaaw bu mu jàngee ba xam li mu war a xam yépp bala ñoo dugg ci loolu il faut ñu leeral dara tuuti mooy moo Mawlana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahima Niass ànd ak euh, xaj na Euh, digganteem ak Senghor waaye moom lépp lu mu daan def daaw ci buuti ak ñi nga xam ne ñoo yilif réew mi ndax bañ na ko sax ba bi muy aj ajam bu njëkk moom wax na ko ne bi mu paree ba pare waxtaan naa ci ak autorité yi ne mi ngi tukki mu ngi dem aji kon moom côté boobu euh, amu ci benn problème euh, ba nga xam ne lépp loo xam ne mi ngi ko daan def rek dana fexe bu du ci réeroo ak ñi nga xam ne ñoo di. ku war a yëg daal dana yëg. waa ku war a yëg da nga yëg. Euh, ndax xam na ne ñii tamit am na lu leen yàlla cërale ci wàll àddina euh, ci wàll muallafaatam yi lim taalif bëri na trop lim njëkk a taalif comme ni ko waxee ci commencement bi mooy roxul adab li ma xawaa min xikamin wa adab mm, ay ndénkaane moo ci nekk Euh, képp koo xam ne yaa ngi jàpp tariqa tijaniya ni ngi ko war a jàppee ak teggin yi nga xam ne moom nga war a am booy wérdu ak lu ni mel ni nga war a fonkee say waajur ni nga war a fonke jullit ñi ni nga war a fonkee képp ko dajeet yooyu ay téere boo xam ne téere bu am solo la damay wax ne téere boobu yelloo na ñu def ko programme ci université àddina bi taalif na tamit ci tasawuf kashful ilbas an faydati xatmi abil abbas boobu bi muy dem Nigéria moom la yóbbaale woon bi mu demee waxtaan ci jox leen ko biñ ko liiree mu yéem leen trop euh, bokk na ci li nga xam ne tax na ba waa Nigéria ommatu ñëw topp Mawlana Cheikhul Islam Al Hadj Ibrahima Niass euh, taalif na ci siira nujumul huda an kawn nabiyina afdalu man daa ila llahi wa hada taalif na tamit nuurul basar ci siira dañuy tënk rek parce que mm-hmm. taalifam yëpp kenn mënu ko tudd mm-hmm. euh, taalif na ci fiq raful malaam aman rafaa wa qabada iqtidaan bi seyd anam ci wàllu qabdu uh, xadiis yi ci rodd yëpp taalif na tamit ci fiq xujjatul baaliga fi kawni izaatil quran fi rajo saaiga uh, boobu mi ngi ko taalif bi nga xamee ne indi na fi kaseti alquran yi ñu koy teg ci rajo yi ñu bëri di kaas di wane ne loolu daganut rajo yi nga xam ne ñu ngi ci teg ay musique ak ay lu nekk di ci teg alquranu karim daganut mu indiwoon coow loolu du ci Sénégal rek ci Afrique sax nga xam ne benn lettre bu ko buuri kanu Sanusi bindoon di ko ci laaj ne ko Nigéria ñëpp a ngi laajte mu taarif ci téere boobu alxujjatul baaliga fi kawni idaati alquran fi rajo saaiga xoolal fi mu nekk ñu toll amul benn jumaa boo xam ne yaa ngi nodd lu may ne da nga teg alquranul karim te ci commencement bi ñu bëri dañ koo di ngi toon dañ ànduñ ci woon taarif na ci wàllu sarfu mooy conjugaison euh, euh, tuxfatul atfal fi xaqaayiq al afaal Euh, taalif na ci wàllu way nag moom kenn xamul lu mu toll euh, dawaawin sitta sayrul qalbi ak chifaawul euh, isqaam ak yeneen i téere yoo xam ne yëpp sayrul qalbi nga xam ne boo koy liir dangay ngay gis mm, ni mu xamee woon addina shaxsiyaat yi nga xam ne mi ngi mi ngi leen di tudd ci biir seyrul xam bi nga daan bàyyi fu la xamee shaxsiyaat yi fama napoléon aw leninun wa markasun bi muuxan ilayhim xalli anka xabala kitaabun min allahi jalilu jalaaluhu xadimun wa baaqin laa yaxaafu zawala ak ñoom eh, Karl Marx yooyu yëpp mi ngi leen di tudd ci téere bi shaxsiyaat yooyu nga xam ne ñoo jamonaantoon ak moom Euh, ak yeneen i téere yoo xam ne Mawlana Cheikhul Islam Alhaaj Ibrahima Niass taalif na ko ba ci tafsir bi nga xam ne euh, suñ mbokk mauritanien Mouhamad wala Cheikh Abdallah dajale na ko di tafsiri bàyyi bi nga xam ne moom la daan tafsiral mauritanien yi mu dajale ko ci juróom-benn volume yooyu yëpp nekk loo xam ne euh, ay téere yoo xam ne xaqiqatan yastaxiq an takuna muqarrar fi jaamiat mais na lii ak junj ci mais li des mu ëpp mhm. ndax yi nga junj nii yëpp yuñ tabon la tabon nañ ko waa yi ma junj yëpp yuñ tabon la boo ko soxla boo demee ci makaati bi di ko am ko mboolem yi ma wax ni yëpp ay téere la yoo xam ne boo demee ci makaati bi ci biir jumaay ma dina bàyyi ñuy jaay téere foofu da ko fa fekk bay euh, kon mel na ni bu ñu la déggee euh, téere yi mu bind bëri na mais jox nga ñi ci nub sax euh, bëggoon nañ xam nag ci bi tax see ci gàtt ña bala ñuy wax bala xam naa di ci des relation Cheikh Ibrahima bi suxuful xarab yi wa bil relation bi mu amoon ak lenn ci journali arab yi ak eh, rajo yi. waaw euh, relation mi ngi tàmbali 1960. bi nga xamee ne ku ñuy wax Jamil Arif nekkoon journaliste jiite woon Axir Saaxa ñëw na tukki ci Sénégal doon def reportage ci Sénégal gis Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bi mu ko gisee daal ne li moom safqa saxafiya la. maanaam xam nga saxafi moom lu tumuranke rek lu bëgg euh, bi mu gisee moo Mawlana Cheikh na ak li ko topp ci ay mbooloo ak luxal arabe bi muy lakk mu fexe ba ñëw Medina toog ak moom dafa mu interview bu yaatoo yaatu bi demee publier ko ci rajo yi bu ñëwaan Égypte journal yëpp euh, ci téere bi tudd naa ci lu ëpp fukki journal wala fukki journal rek euh, benn yoo xam ne ci journal Égypte rek yoo xam ne boo demee seen archives yi da nga fa fekk ay kii yu bëri ay xibaar yu bëree bëree bëri du benn du ñaar ci Mawlana Cheikh Ibrahim heure bu duggaan Égypte journal yi danañ ko yëg danañ bind ci moom ba boo demee jaridatul ahram da nga fa fekk benn dossier melef boo xam ne lépp lu ñu bind ci Cheikh Ibrahima Niass dañ ko daan dagg di ko denc denc ci melef boobu man àgg naa ba ci melef boobu comme ni nga xamee noonu la chaxsiyaat yu mag yi di amee melef ci archive journaux yi ba mboolem ay taxarukaatam bu ñëwaan ci Égypte journal dañ ko daan topp parce que gani président Abdou Nasser la gani Cheikhul Azhar la Cheikh Cheltut ba bi mu génnee àddina sax gannaaw bi mu génnee àddina ay at ci 27 décembre 1999 ku dem ci ahram da nga ko fa fekk journal bi génnoon 27 décembre 1999 ba ñuy xool shaxsiyaat yi gën a feeñ ci aalamul islaam yi ci qarne 20 tànn nañ ko ci te ci suma xam-xam ci suma yëg-yëg xaw ma nag mun naa am mais ci suma yëg-yëg man moom rek laa ci gis ci africain bi Cheikh Ibrahima yi shaxsiyatin islamia kon bu ma la déggee fekk nga ci relation ak mboolem journaux yu nekkoon Égypte bil axas ci li nga daaneelee mooy fekk nga ci al ahram muy journal officiel ci Égypte mm-hmm. ñu defal ko fa euh, dossier xaasa mm-hmm. boo xam ne lépp looy gëstu ma nga ca mm-hmm. gis nga it def nañ fa tànneef gu wane ne Euh, personnalité yi gën a fis ci àddina mhm. ci lislaam bil aqas ci Afrique moom rek nga fa gis mhm. yan kàddu ngay tàggatoo yan kàddu ngay dénkaat waaw di tàggatoo rek di la gërëm ci daje bi euh, di gërëm mbooleem ñi nga xam ne ñoo doon seetaan euh, di nuyu suñu xalifa wala suñu représentant xalifa fii ci Dakar di Cheikh Mouhamadou Lamine Ibrahim Niass nga xam ne moom it kenn ci ñi nga xam ne seede la ci tukki yi nga xam ne bàyyi daana ko tukki ci Égypte ndax yu ci bëri fekkee na ko am na ci boo xam ne sax euh, bi mu ñëwee bàyyi mi ngi koy présenté Cheikhul Azhar Cheltout ne ko kii suma doom la mokkal na alquranu karim Cheikh Cheltout ne ko ah mokkal na alquranu karim mu ne ko waaw Cheikh Cheltout di ko nattu ci alquran fa mu ko tëbb ci sa sooratu baqara mu tari Cheikh Cheltout kontaan lool euh, kon moom comme chahid iyaan la ci tukki yooyu nga xam ne bàyyi na ko tukki ci biir alamul arabi eh, ñu ngi koy ziyaare bu baax eh, di ziyaare eh, mboolem mm, ñi nga xam ne ñooy mbokk yi ci madina bàyyi rawatina xalifa bi di la gërëm ci daje bi di gërëm mboolem mbokk yi doon seetaan di déglu télévision beeg rajo bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne ñu ngi jëloon seen temps jàkkaarloog seen télévision RTV ci seen émission bi ñuy tuddee Mizanul Islam fil Haya lii la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko ni lu ci manqué ci matadi ñun ñi ko daan def la ñoo ngi leen di koy jéggal ñoo ngi dellu gërëm suñu invité bi Baye Thiam Zeyna di ko ñaan yàlla tawfiix di ñaan yàlla jëf ji yàlla boobu neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaat yi di gërëm suñu réalisateur di gërëm suñu preneur de son di gërëm waa régie bi gërëm caméraman yi liggéey bi képp koo xam ne sa loxo tàbbi na ci bi yàlla mën ko seetaan ñu ngi ñaan yàlla boole ñëw yow yiw bi ngi leen di jox rendez daje dox dajee bi di ñëw insha allahu mawlana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala جزيلا